Sénégal TV mbokk internet yi ngi fii ci Saladam 2023 ci euh, du euh, 27 janvier au 5 février 14e édition ñuy waajal nag salon du nord waa Saint-Louis ak waa Louga war nañ def benn salon ba mu solo du 20 février au 27 février fële ca Saint-Louis Tay ma ngi taxaw box bo xamni ne kilifa gi noonu nuyoo wax moom moy kan. Wa waaw asalaamaaleykum ma ngi leen di nuyu yéen waa yéen waa Samagal TV. Mm-hmm. Euh, di leen dalal ci foire bii di foire Saladam. 2023 mm-hmm. fii CICES. Mm-hmm. waaw fii di bergerie sant yàlla. Cheikhouna Ndiaye Colobane. Colobane bergerie sant yàlla kañ nga nekk ci càmm gi. waaw càmm nga a yàgg bu ma ci xam naa ay euh, trois ans et demi ah. trois ans trois demi. macha allah waaw moom laa ci nekk gum quoi. ok macha allah. Euh, tey euh, ñaa ngi doog a ñëw Saladam wala. waaw maa ngi doog a is bu ok fan fan la bergerie bi nekk. bergerie bi ñu Dakar Colobane. Colobane mhm, Dakar euh, euh, trois ans yi seen sangal jotagum ak noo duggee. waaw boo xoolee na sang yi laal bari na ndax boo xoolee xar bi ma téye nii. ok bokkoon ci xar yi ma njëkk a uh-huh. te moo jëloon ci foire Touba ba jàll deuxième ci Espoir. macha allah waaw bu ñuul bi moo jëloon troisième nga xam si ne benn xar rek moo ma rawoon foofu. ok vraiment. ah da exposé jël ko wala ñu. waaw damaa exposé concours jël ko. foire mooy kii nii. ah mais mais champion ko de grand. non taxal rek ah? taxal rek yow foo xanaa PR nga jaar. non damaa taxal rek. ah <laughs> voilà tey ñii gagné euh, euh, kii kan la kii kii kan la. kii mooy Adja Kolle. Hmm. di seetu Sassar ak Cheikh Diop ak Mansour. ok waaw moom moom vraiment daan naa la. ok donc joxe naa oh, ñaata wàll am. kii war naa am fi mu ne nii 3 euh, ans ah. 3 ans 3 ans macha allah ci kooku tegoon doomam bi. waaw ay maal yu bari yu bokkul na la benn maal te bëgg ko ñaari yoon. maal yëpp ah. damay changé ay maal la. macha allah ah macha allah. ko da nga ñëw dugal ñaari xaar. waaw ñaari yëpp jékkoon macha <laughs> euh, rek. Uh-huh. ndax boobu kii 13 mois la woon booba kii 15 mois. bi ñu ok vraiment léegi nag màgg nañu ay mag lañu. macha allah waaw moom bu tout blanc bi rafet bii nag. tout blanc bi doomu Ado Fils la. ok waaw doomu Ado Fils la quoi moom sëtu séeréer la. ok vraiment. macha allah ñaata mois la moom. moom fi mu ne war na am ay 19 mois. 9 mois ñaata porté benn porté la am. ah doom bi waaw fa ñëwul moom. ah ñëwul moom rafet na ah. très belle allah nag ñaari ndaw ku la jur ñooñu. waaw ñaari xar benn bi maal bi moo ko jur. Mhm. benn bi kii moo ko jur ñebe bi kii moo ko jur. ok waaw bu ñuul bi nag maal bi moo ko tawloo. ak mal bi doomu doomu Nazer la. ok Nazer doomu batoñe la Nazer ginnaaw papa moo fa def 120. ok waaw bu dee côté yaayam yaayam sëtu Saloum Saloum ndax dañoo jël doomu magistrat bu jigéen. te ko uh-huh. am dan uh-huh. mu jur yaayam moom yaayam doomu am dan la. sëtu Saloum la ak magistrat. macha allah mm-hmm. euh, fi mu toll. waaw wax dëgg fi mu ne nii moom macha allah ndax amal na ma kàddu jigéen ak yu góor mais kàddu jigéen sax joxe naa ñaari. Uh-huh. mais am na xar yu ñu tëbaat fii nii. macha allah ñu wàcc incha de. ah non baax na de. baax ah, na de moom laay wax. mais macha allah ah, da nga da nga da nga da ngay doon toog di xool affaire yi. non moom il faut nga nañ la gars yi. waaw ah? ndax dafa leer parce que li mënul fexe ba du génn parce que ñi ngi ma woon nii ay doomam duñ taxawal. waaw vraiment ñi moom. Ah. ñi moom su ma la waxoon li ma ci jaay lépp. Ah. non doo ko mën a gëm. non mais gars yi ah, <laughs> teg nga ko ci yoon kontaan naa ci yow de. ñoo ko ñoo kontaan naa ci yow de. dugaloo benn xar concours fii. non non dugaloo moom ah ah xar yi xar yi ñoo ëmb sori. ah macha allah ah gars kontaan naa ci liggéey bi de. alhamdulilah kontaan naa ci liggéey bi kontaan naa parce que li nga def nii yombul quoi. alhamdulilah alhamdulilah ah courage rek moo mën lii. vraiment jërëjëf voilà euh, maa lu mu tudd mal bi tuddu Jamil Jamil waaw sama benn xar xar laa tudde quoi Jamil ñaata mois Jamil ñu ci 21 mois 21 mois kon na jox ma adresse rek numéro bi waaw ma ngi dëkk Colobane marché Gambie ci côté gendarmerie bi waaw sama numéro téléphone mooy 78 112 60 48 78 112 60 48 Cheikh Ndiaye Colobane jërëjëf waay kontaan naa dëgg kontaan naa jërëjëf